Londres ak fi nga xam ne nag yaa ngi ca États-Unis rawatina nag taalibe Thierno Abdourahmane Bari borom boggal ñoom ñëpp nag ñu ngi am mbégte contentement wax nag incha allah samedi le 6 décembre ñoom ñëpp danañ daje foofu nga xam ne mooy ci CICES ci huitième conférence internationale religieuse bi nga xam ne nag waa daayira Saxadatul Daara yi nii ñoom ñoo ko organisé ci teewaayu Serigne Bassirou Tall xalif général omarien yi ak Serigne Mbaye Sy bu Abdou Maam Abdou ah, tamit modérateur bi di Chérif Ahmed Tidiane Aydara di nuyu tamit Oustaz Aliou Sall dana fa teew imam Mansour Gueye ci présence Thierno Abdourahmane Bari ñoom ñëpp yëpp nag euh, incha allah samedi 6h euh, la mbir mi di am di conférence boo xam ne lépp ci jàmm lay doon ak euh, ci salaam yal na yàlla may ñu egg ci ak jàmm nuyu nañu kilifa diine aada yeeg cosaan yëpp rawatina suñu papa alaaji Ousmane Ndiaye waaliwu yàlla kaamin bi xam ne mu nekk ci HLM angle Mousse ak soxnaam yal na yàlla defal kon nag mbokk yi defar mooy gërëm ñëpp rawatina nag waa Pikine ko ñu ñoom Go Fall ak Abdou ak ñi xam ne mooy artiste Moustapha Baro mu ngi nuyu Ndeye Ndiaye Baro ca Burkina faço ñoom Soadou Baro Parcelles Assainies Binta Sow ñoom Aliou Bar ah, Ibou Baro ah, Adja Lay Dadi Mariama Konaté du du ture Jaxaay ak son marabu Baye Maktar Kat ci cité Fadia de la part de Leus Baro nee am na mbégte contentement bu mag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy ah, seetaan di nuyu tamit Awa Mbeng borom cité Lobat Fall ñoom Awa Ñang chéri Doudou Ngom mami chéri Bada ak Adji di nuyu tamit Ndiaye doomu Ndeyu Assu ak Binta ak monsieur Diouf ñu ngi koy nuyu Pape Moussa borom euh, euh, euh, borom rati tali bu mag di nuyu Mohamed Victor ñoom Baye Tama Mbeng ak papa di papa Gofal ñu koy nuyu tamit ak Abdou Fa Gueye Isma di Safil borom charrette Isa Isma Safil di borom charrette ñu koy nuyu bu baax ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte contentement mbokk Tigo moo leen may seen émission Kouthia Show ñu ànd ci nag ak caméraman bi nga xam ne nag moom mooy Matar Ka ki nga xam ne nag mooy Malick Ka di ànd ak ak Modou Cimpo nuyu nañ ko bu baax. ca réalisation ba Pierre de Silva fekkoog ki nga xam ne nag moom mooy euh, donc ak ñoom mun kii ñu ngi foofu nag ca réalisation ba ziar nañu dem ñu fi nekk ñëpp fàttewuñu kenn ak képp ñoo xam ne yaa ngi ci sécurité bi kara sécurité nuyu nañ ko ak képp ku fi toog tey ci télé Futur Média di delluwaat di jaale suñu papa Assane Ndom bi nga xam ne goro la ci Demba Dia te doomam di sëy Demba Dia Assane Ndom nekk chef de sécurité télé Futur Média ñu ngi koy ñaanal tamit euh, yàlla may ko xol bu muñee li nga xam ne mooy ndogal bi dal ci euh, kaw euh, doomam bi nga xam ne nag borom këramoon nekkoon Demba Dia ñu koy jaale ci turu télé Média ak ci groupe Futur Kouthia Show yëpp nga xam ne nag moom da doon toog fii ndeysaan di ñu wéttali di suñu père boo xam ne wax dëgg yàlla ku ñu faral di conseiller tey mu nekk ci tiis moom père Assane Ndom yàlla ko yàlla may xol bu mu muñee loolu nga xam ne mooy gorom bi génn àdduna di Demba Dia mbokk ñu seeti Ablaye Wade tey la waxoon te tey jot na dëkk bi tàkkul minuit <laughs> minuit tey ci guddi à partir de minuit bu yow boo leen di nelaw yéen ñëpp ngeen jël poto ndox fanaanoo ko ndax Abdoulaye Wade ne tey am minute day taal dëkk bi xaw ma fu koy taalee man de bu émission bi jeexee ma fa laa jëm <laughs> xaw ma fa laa jëm fii yëpp du fi taaw fuuta laa jëm fuuta <laughs> fuuta fuuta laay daw du ma fi toog fuuta ci boppam fa laay jubali xam nañu def nañ seet Abdoulaye Wade minuit jot na ci Dakar Abdoulaye Wade la mu waxoon ndax dina ko def nañ ko maa fi waxoon waxaat ñu ne góor gi wax waxet maa waxoon dem ci biir ne maa waxoon waxet ñu ma koy woowee te loolu bokk na ci lima ma daanaloon damay bañ ñu ne moo waxoon ne ñetti fan la maye bu ko weesoo dama waxoon ne dinaa wan magi Sall may kan mag nag bu bëggee ñu naw ko day sàmm kàddoom ma dikke ñaa du ma ko yee du ma ko xamal dara maa ngi nii di dem ci pale bi taal pale de la république bu Sénégal Marianne ñëwal alma al alma almet waxal abdu moo alma almet abdu neel abdu moo alma almet waaw gaawal gaawal gaawal gaawal gaawal damay taal sa gaawal gaawal balaa gendarme di ñëw gaawal garde corps yaa ngay nelaw waaw gaawal gaawal su ma commencé taal su ma commencé taal ci nga ñëw de déet président ah. gaawal xoolal xoolal ma fële ndax gendarme yaa gaawal gaawal xoolal ma gendarme damay taal Sénégal Macky Sall xam allo allo allo waaye non dama ne ma dikkee maa ngi ci kër gi génn ma nga ne ñuy woote waaw waa Touba wax la ne ko Abdoulaye Wade taal da waaw xoolal ma ndax gendarme damay taal Sénégal Sénégal laay taal allo Tivaouane waaw déedéet taaluma dara dañuy wax rek journaliste dañuy wax rek taaluma dara Sénégal laay taal léegi mu tàkk jafet damay bañ ñu ne maa fi waxoon damay taal senegal damay taal Sénégal bu ma kenn tee damay taal Sénégal ma dikkee bàyyi ma bu ma bu ma jege damay taal damay taal damay taal wax waxat bi laay bañ wax waxat bi laay bañ damay taal damay taal ma dikkee damay taal damay taal Sénégal laa wax damay taal Sénégal boo boo damay taal damay taal damay taal Sénégal laa wax bàyyi bàyyi damay taal Sénégal damay ma tike damay taal Sénégal laa wax bàyyi taw ta tegal ma tegal yow eggale tegal tegal tegal. yow Macky Sall Macky Sall damay taal Sénégal dama koy taal dama koy taal. dama koy tàll. dama koy tàll dama lay tàll dama lay tàll waaw. góor gi nañu waxtaan góor gi. waaw waaw déet góor gu dëgg. waay waay waay waay déet góor. dama koy tàll. dama koy tàll.